لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ak si cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti nga mën ko njëkk am bul fàttee cliquer si abonné ak si cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti nga mën ko njëkk am gëm yàlla bu doon garab ndox mi koy dundal di ko arrosé mooy maanaam jëf yi ñuy jëf muy julli ya xoor ya joxe asaka ya xaj màkka ya rafetal jëme ca ndëkka dëkkandoor ya taxawee sa njaboot ak ya ca aju loolu nag kenn mënu koo def nam waree na ko yàlla lu dul nga xam ko waaye saa yooy def te fekk xam-xamut mënoo mukki ci ñaar benn nga dugal ca lu ca bokkut mbaa nga génne ca lu ca bokk jëf ju mun di doon nag saa yoo ca génnee lu ca bokk mbaa nga dugal ca lu ca bokk rek jëf ja yàqu na li lay mën a musal ci loolu mooy xam moo waral gannaaw bi sa gëm rafetee ba mu am am am laytaay bu dëgër jëlal sa nag nga dem sàkku ci xam-xam ne waaw laab moom nuñ koy defee nuñ war a jàppee jàpp lu cay farata njàpp lu cay sunna njàpp lu lu ñu sopp waaw lu ñu war a sangee janaba lu war a jiitu lu war a mujj nuñ koy defee waaw julli moom ku taxaw looy wax ku rukkoo looy wax ku sujjóot looy wax ku taaya looy wax waaw julli moom lu mu taxawee xoor moom lu tax yàlla sanc na ko loolu lépp nga jéem koo taxawee genn wàll giñ def ci suñu àdduna ba kenn mënuñu cee nax kenn ku ne ci ñun yére ya ngay sol xam nga la muy jar or ba ngay takk garaam ba fa mu toll xam nga ko ba place bi nga xam ne yaa ngi koy jaay na marchandise ma mun di toll donte conteneur lañ la wàccee lu ca sànku xam nga ko waaw loolu nag ni nga xitteewoo ba xam ko taxaduna rek la genn wàllaati genn wàllaatam boo ko defoon xam sa diine te nag suñu réew mi yàlla barkeel na ko barkeel gu day ni néew na nga dox juróom fukki meetar te dajeexoo ku la mën a xamal sa diine waaye nag foo toll sa àdduna kenn mënu la cee nax sa léppi àdduna xam nga ko bañ lay tuddee maanaam intellectuel nga ci lépp te sa diine xamoo ca tus kooku moom intellectuel intellectuel ga waanam wàññeeku na doy na waar kon nag nañ fexe ba xam suñ diine gannaaw bi ñu gëmee yàlla ba pare ñu xam lan mooy defar suñ diine loolu moo tax ñu indil leen seen formation Laxdari de A à Z ak lu ëpp 11 heures de vidéo buy tax nga xam lépp lu làmboo ci sa wàllu diine noonu lañ koy toppee ligne par ligne baat par baat page par page ba mu mat 63 pages am na 62 vidéo yoo xam ne defar nañ ko ak tradition wam ci wolof ak arabe de A à Z ñu topp téere bi ligne par ligne page par page nga xamante ne nii dinañ ci détailler lépp loo xamante ne nii muskalaf bi bu xasee ba majeur war na koo xam ak li nga xamante ne nii moo aju ci wàllu règle gis mbaax ci jigéen lan mooy àtteem lan mooy deretu wasin ak boo amee doom kañ nga war a toog doo julli kañ nga war a julli ak li nga xamante ne nii moo aju ci waxtu julli yi kañ lay commencé kañ lay jeex ak at yi nekk ci julli yëpp farata yi sunna yi boo juumee ci julli ak façon juumte yëpp nan nga koy réparer moo xam julli mbooloo la wala julli yow kenn ak ki nga xamante ne ni dafay sikki sàkk ci jullee lan mooy atem kuy sikki sàkk ci njàppam lan mooy atem ak lépp loo xamante ne nii moo aju ci sobe ak diine ni ñuy defee fóotu lislaam nan la ñuy tuubee ak lan moo aju ci wàllu jàpp farata yi yi lan moo aju ci sangu farata nan lañ koy defee ak lan mooy farata yi ak sunna yi ak ngëneel yi tiim tamit ci wàllu diine kan moo ko war a def ak nan lañuy ñuy dinañ leen ko xamal ci formation bi di lax day lépp nag dinañ ko def ci traduction ci wolof ak arab même yow su fekkee mënoo lire arab sax formation formation bi dina la intéresse ndax dinañ ko traduire liñ baax liñ dinañ la ko expliquer détail par détail ngir nga xam lépp loo xamante nii moo aju si sa wàllu diine mu a nekk di nekk 63 pages yu composé téere bi di nga xamante ne nii bëgg na xam sa diine formation bi yow yaa tax ñu nga koo suivre si sa téléphone mën nga koo suivre si sa tablette mën nga koo suivre si sa ordinateur te li gën a neex ci formation bi mooy dafa ànd ay bonus képp koo xamante nii jëndoon na téere bi dinañ ko may téere boo xamante nii moo am bien feewu 114 soraat yi le 5 oran. dinañ la may tamit livre électronique Laxdari version arabe bi la may livre électronique Laxdari version arabe français di nga am tamit possibilité télécharger téere Laxdari bi ci arabe français dinañ la may aussi benn logiciel alxuraan boo xamante ni 18 imam yu hajang a jàng nyom ci àdduna bi ñoom ñoo def ci Gamidi imam al Xuseyri imam Abdallahi al Matrou ak al Fazi li gën a neex nag mooy logiciel bi soo ko amee di nga am traduction bi ci arabe français ak anglais c'est disponible en version formation ordinaire loolu mooy li làmbu formation bi formation bi nag képp si bëgg mën nga ñu contacter ci 77 523 83 80 asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kaana yarju allaha wal yawmal aakhir liman كان يرجو كثيرا وقرن في بيوتكم